partenariat boo xam ne rek Sénégal dana ci gis boppam njiitu mi di président Bassirou Diomaye Faye amal na ab discours bu am solo ci wàllu souveraineté vaccinale fii ci déndu Afrique l'observateur ni ko entretien bu njëkk bi dox ci diggante njiital Sénégal ak bu France ñoom ña nësër ay lëkkaloo yu yees yoo xam ne rek dina dox ci diggante ñaari dëkk yi bés bi le jour àddu moom it jëmale ci gise bi nga xam ne rek dox na ci diggante Macron ak Diomaye foofee ca bi di peeko carte sur table na la ñu toog di amal déjeuner waxtaanee nañu fa nag lépp loo xam ne moo soxal coopération yu yees a doxal ci diggante pareeg ndakaaru communiqué boobee nag naam fësalul lépp li nga xam ne rek mooy lañ ca tënk waaye àdduna jëmale moom président Bassirou Diomaye Faye ci jafe-jafe yi nga xam ne rek dañu koy faral di jànkonteel ñeeli vaccin jëm ci wàllu wér-gi-yaram gi Sud Quotidien ne ko diggante ndakaaru ak Paris kay mi ngi ci yoonu am xar kanam gu yees président Bassirou Diomaye Faye ak Emmanuel Macron kenn ku ca nekk yaa ngay fësal say bëgg-bëgg nag jëm ci wàllu partenariat bu war a dox ci diggante Sénégal ak France ca forum mondial bi nga xam ne nag dañu koo jagleel wàllu souveraineté ak innovation ci wàllu vaccin yi moom njiitu Sénégal di président Bassirou Diomaye Faye nag ma nga fay waxal waa déndu Afrique l'info yëglekaay moom àddu jëmale nag ci xar kanam gu yees gi war a dox ci diggante Sénégal ak Paris Macron di xamle ci biir yëglekaay bi ne ginnaaw bi mu toogee président Bassirou Diomaye Faye leer na ko ne nag dina am partenariat bu yees te am solo bu war a dox ci diggante Sénégal ak France nga xam ne rek lépp dafay tënku ci wàllu valeur démocratique commune waaye relation bu yees boo xam ne rek dafay daal di tënkoo ci respect ak partenariat boo xam ne rek dafay équilibré ngir intérêt Sénégal àddu jëmale ci leneen loo xam ne rek bés bi le jour dellu soit na ci tey jii muy la xewoon ca Medina Gounass yéenekaay bi ne moom xalif général bu Medina Gounass ma ngay génn di sàkk ñu gën a yokk matukaay yi nga xam ne rek jël nañ ko ci wàllu kaaraange gi Le Quotidien yëglekaay def ab reportage bu am solo nag ci cité religieuse boobee nga xam ne rek ay jàppante yu metti amoon na fa ba benn bakkan faatu ca Medina Gounass googee nag jamono fa nemmeeku askan wa nag kenn ku ca nekk yaa nga toog ci sa biir kër wàllu jënd meeg njaay mi nag amut lenn lu ca dox wàllu transport bi di dem beeg dikk bi nag lépp la ñu fa dakkal yéenekaay bi ne ñii di woy takk der yi rek ñooy wër di amal ay patrouille état bu Sénégal jamono ji nag teg na loxo lim bu takku ci ñoo xam ne rek ñoo doon def ñaawteef gi l'observateur ne kenn ki nga xam ne rek moo ñàkkoon ba bakkanam ci jàppante ya fa amoon jamono ji identifié nañu ko waaye ki nga xam ne moo ko faatoon itam nag yoon teg na ko loxo moo ki gànnaay enquête yëglekaay dafa xëy tey ji ci wàllum tukki mu jaarul yoon bi ci diggante weeru janvier ba weeru mai atum 2024 lim bi ci ñàkk seen bakkan kenn mënu koo xayma yéenekaay bi ne ñeen fukki bato ak juróom-ñaar des nañu ci géej gi ak doomi aadama ci diggante juróomi weer yi ñu weesu toll si junni ak juróom fukk ak ci ay doomi nag ñoom ñëpp des nañu ci géej gi te ñu ngi bàyyeekoo ci fukki dëkk ak juróom-ñaar ci gëstu gi fësal nañu ne nag yoonu Mauritanie bi nag moo ëpp ci li mu faat ndax lu toll ci ñetti junni ak juróom benn téeméer ci ay victime nag des nañu ci géej gi wax ci jàppante yu metti yi xam ne rek amoon na ca champ pénal ni ki bërki bii les éco yëglekaay ma ngay dellu soit ci lu yéeme li nga xam ne rek teg nañ ko loxo ci chambre prisonnier yi bokk na ci lim bu takku ci ay téléphone portable ne rek génnee nañu leen fa yàmbaa ju dul jeex ak i carte sim nag daal nañ koy teg loxo ci biir chambre prisonnier yi la ñu fekk nag mu yore ab daggitu téere boo xam ne rek daan def bay mën a dugal portable yi ci biir prison bi ay ginaar la ñu daan jël xar ko di ci dugal portable yi bu dee puce téléphone yi nag dañuy jël ab pom daal di koy dugal ba ca biir ngir mën koo dugal ci biir prison bi te loolee lépp nag ci ndimbalu borom sareet yi la koy amalee libération moom daal di koy feelu ne lu jëm ci wàllu grâce présidentielle bi nga xam ne rek amal nañu ko ci feetu tabaski bi jamono ji nag ñaar ci ay bénéficiaire daat nañuy dellu kaso kenn ki dañu ko jàppee lu jëm ci wàllum ki ci des nag moom daa faat bakkanub doomu aadama démb moo waral tey ci fête de la musique tey ji nag Walf Quotidien moom daal dinay defuk pàttali nag dellu soit ci ñu woon démb ba ñu ci mel ni nag waa xalam orchestre Baobab star number Tiwaawan bu Ndakaaru waa Turekunda ak waa Afrikando yéenekaay bi di Peko au bon vieux son réew mi la ñuy àddu nag tey ji nag Anna Thiaw dafa seeti woon nag kii di DJ Nina moom mi nga xam ne rek dafa xarañ lool ci li nga xam ne rek moom lay faral di def ci wàllu platine ak symphonie bi nga xam ne rek moom lay àndal yër leen boobee yëglekaay jeexalee ko ak stade quotidien ci wàllu Eurobond 2024 yéenekaay bi samp laaj ne France naka la nar a doxalee nag ak waa Pays-Bas sans Mbappé record yëglekaay fell ko ne lum ci mënti doon daal jongante bi nag ñu ngi ko a amal ci diggante France ak Pays-Bas bu 19h jotee lay doon jeexalee ko ak sunu làmb bëre bi nga xam ne rek bëgg nañ koo amal ci diggante Eumeu Sène ak Franc ci weeru décembre atum 2024 wala janvier atum 2025 yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne nag kii di Mansour Ba jot naa waxtaan ak doomu Pikine jii di Eumeu Sène waaye Eumeu seen la mu xam xamle ci biir yëglekaay bi nag mooy du mës a bëre ak Franc ndax da ko manqué de respect mbokk yi léegi noonu fas yëglekaay yi jàmm ak jàmm. Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak may seen revue de presse